alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din mbokk julli gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñëw tey di yëkkati benn déclaration boo xam ne dañ ko sof ci déclaration bi suñu am sa Mbàkke bu suñu Abdou Lahad Mbàkke def barki démb yàlla fi yàgg wér te mu def ko ci déclaration bi xam ne suñu Mamour Mbàkke bu Cheikh Mouhamadou Mourtada def na ko ci li xew Chicago ci po ak pecc xotti diine xotti war may diine ak maa tey ak def lu la neex am na fële ci Chicago ci kër Sëñ Tuubaa gi sëñ Mamor nag dafa nekk ci dëgg moo tax képp ku bëgg dëgg wala ngay wut dëgg da ko jàppale sëñ Mamor li mu nekk di yëfi boppam yëfi diine la diine Sëriñ Tuubaa moo tax mu doon sonn moo tax mu dem fépp ba bàyyi fi ndono lu seer ñaanul yàlla suma subhaanahu wa taala yàlla yàlla na ma ko sàmmale sama ginnaaw waaye yàlla na ma ak njaboot goo xam dana ko sàmm mu mel ne bay di sëñ Tuubaa ñaanoon dafa dëggu ci sëriñ Mamour Mbacké moom Cheikh Amadou Mourtala wahab lana durriyatan tuddium ala amal saaliha qadim durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabi Musa tahidu sëñ Tuubaa yeesal diine ak dindi poussière ba ak dindi li ci nekk doon loolu sëñ Tuubaa doon def waaye bëggum bëgg dina ak fiir gum ci fiir tax mu ñaanaat gannaawam yàlla yàlla nga may ñoo xam ne sama gannaaw doon na ko yeesal yeesal diine nag mënu la passé nga gis kuy xotti war may diine kuy tëgg ak faw ko pecc di boole góor ak jigéen ñi ci néegub yàlla suma subhanahu wa taala ahak yi néegub yàlla la ndax kërug sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa daa waxoon yàlla suma subhanahu wa taala wàccaan bu yuti kullaha masaajida gis na da koo ñaan sax da koo ñaan ndax la mu bëgg gën koo ñor gën koo yitteel daa bëgg fi ñu koy tuddalee ne fii moo ko moom mu ne yàlla yàlla nag ma defal bërëb yooyu muy ay jàkka te alhamdulilah yàlla defal na ko kër sëñ Tuubaa foofa dem ci at ci ah, ci ci ci ci bitim réew daara kër yëpp dañ fay julli ajjuma dañ ko julli waxtu julli juróom noonu lañ ko def di jàng alxuraan kat yi di fa dajee di waxtaan ci mbirum diine kon yàlla nangul na ko lu mel noonu kon bu ñëwee ba gis becc cuun ak njabootam ñu feddi géew nekk ci biir yoonu suñ ci waay def lu leen neex te yàgg koo def ñu seetaan leen damay wax ne nag arab dañuy wax ne ida tamal amru badaa naqsuhu lépp lu mat dana mot waaye lépp lu mat ci wàññeeku la jëm ndax doomu aadama mënut matul léppam daa am fu mu yem nit loo baax baax baax sa baax am na fu yem nit loo kàccoor kàccoor sa kàccoor am na fu mu yem kon mbir mii becco def te saa su ne mu yëngal mu def loo xam ne lu rëy rëy doon naqari julli ñëpp boo fa jógee daal defaat leneen loolu lépp ci ak jeex la toll luy jeex nag dana yëngutum day mel na garab guy daanu wala kulleexal faaw mu kërën gi kon foofu la toll loolu nag euh, naka jekk moo ma sa dal diine moo ma yont bu yalla subhanahu wa ta'ala su yónni da nga am ñu nek sa wet deug nga bëgg yëkëti ñu ne du fi amee ñooñu lañ daan tuddi al munafiquna salih amon nako nuh amon nako ibrahim amon nako amoon na yonent sallallahu alayhi wasallam amoon na ko tey saa su ne ñooña ñey bëgg bëgg bëgg yu gi yonente yoy ay doom adam lañ doon yu am fit yo xamne ne ragaluñ dara dañu dem sax ba jakkalu yalla nan ko yalla bu fekke li ngay wax nek na waccé sumu gol loolu waxon nañ ko ba yàlla suma suma taa waxoon yontu sallallahu alayhi wasallam wa ma kana li moo la yónni alxuraan li ngay wax dëgg la yàlla wàccee sa taw boo a taw tawale xal ni ko nit ñi wax wala yes billah foofu a yem noonu lañ gis tamit ñi nga xam leen euh, saasi wuñ sunnatullahi fil ard mooy na noonu yonente yi daan def tey moom lañ def dañoo ñàkk kersa boole ci dëgg fit boo la te goole taxaw di wax koo xam ne lim liggéey ci diine ak lim def ci diine wallahi defu goo ko te doo ko mas a def sa sëriñ bi nga naan mooy sa sëriñ mu becc defu ko du ko mas a def ba abadan bi dina ndax moom daa jub jël yoonu po ak pecc ne moom lay jaamoo yàlla wala yeesu billahi taala ñi yor yoonu dëgg ne moom la ñuy jaamu yàlla suñu subaa ana hada siraat mustaqim fattabi wala tabi subula foofu la ñoom suñu maamoon teg seen tànk mbokk yi suñ maamoon mbàkke bu suñ murtala yàlla fi yàgg te wér jaar na nit ñi xam mission bi ko suñ murtala mbàkke bàyyeel ma ma waajuram mu nekk ca yokk ko nag mbokk yi ndax xam ngeen azhar yi nga xam ne moom la suñ Mourtala Mbacke tegoon tey fan la ko suñ Maam Mourtala yóbbu statistique yi dinaa ci ñëw léegi te xam ngeen ne ab societé boo leen bëggee defar da leen di jàngal moo tax suñ tubaab bi mu ñëwee bëgg yeesal diine dafa samp ay daara di jàngale jàngal nit ñi xam-xam bind bàyyi leen fi soññ ndaw ñi ci xam-xam tasud siraat du ko bind ngir xam-xam ngir bëgg ndaw ñu jàng tasud subaan taalif ay téere yu baree bari moo ko ci wàllu njàng soññee ci fa qaddimu taalluman ala amal loolu la sëñ Mamour sëñ sëñ Mourtada Mbacke rek daa am donn ci waajuram bàyyi ko sëñ Mamour Mbacke tey tey tey tey tey mu yokkoo mbokk yi dañu leen xool azar bi nga xam ne sëñ Mamour Mourtada radiyallahu anhu yàlla fi yàgg tuwér ah mi ngi ci di ko liggéey tey fan la ko yóbbu bu ko defee loolu nit ñi dana xam ñi wër si yor seen làmmiñ di wax ak ñi nga xam ne liggéeyal ji ne du ñam ba abadan abidina mbokk yi statistique yi nga xam ne am na ci azar lu ndaw laa ci rek ngeen xam wér liggéey bi sëñ Mamour Mbacke nekkee mbokk yi dañuy wax ne école azhar yi naam sëñ Murtala Mbàkke daanaka région yu bari yóbboon na ko fa waaye tey sëñ Mamor Mbàkke tey amul benn région bu nekk ci Sénégal ba ca Matam ba ca fu mu manti doon tey école azhar am na ca biir gox goxaan yooyu lan la ñuy mooy diine ak langue arabe ngir xamal nit ñi ñu mën a gën a seen diine tey mbokk yi école azhar yi àgg na ci tey 415 écoles ci biir Sénégal bu dee ci bitim réew am na ko d'Ivoire am na Cameroun am na ci bu bare bare bare bi bi ci biir kër Sëriñ Tuubaa xëy na àggul fépp koy ña école a jàng yi ngi mu ñiy jàngale ci école azhar yi nga xam na ñooy ay mooy ñooy professeurs yi toll nañ ci 1607 professeurs toll nañ ñoo xam ne ñooy jàngale école azhar ci biir réew mi Sénégal ak bitim réew mbokk yi classes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir azhar tey ji àgg na ci cent 1379 ay classes àgg na ci tey mbokk yi élèves yi jàng ci biir Azhar yi nga xam ne sëñ Mourtala Mbacke sosoon na ko bàyyi ko sëñ Mamour Mbacke tey di continuer àgg na ci soixante quinze mille quatre cent sept mbokk yi institut mel nii fan la am ci biir réew mi di Sénégal. koo xam ne yoonu état dëgg la xëy na état am na ñu koy jàpp yu ndaw ndawaan waaye as maanaam institut privé la boo xam ne sëñ Mourtala Mbacke rek daal ko sampoon te sëñ Mamour Mbacke ñëw yëkkati ko tey waxuma la dara waaye bag yi rek bag yi nga xam ne ñu ko def maanaam nga xam ne euh, wax nañ ne Azhar bi nga xam ne sëñ Mamour tey jiitu na tey mboolem institut yi nekk ci biir réew mi di institut privé moo ci ëpp lu muy génne ci wàllu lislaam la xam ne ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu diine moo ci ëpp lu muy génne ci ay ci wàllu ci bachelier yi wax nañ rek 84 44 pour cent 84 ci ay bachelier ren am nañ ko yoo xam ne du duggoon nañ ci wàllu kii bi ñee ci admet daanaka mën naa fa ne 50 nanga pour cent yee admet nañ daanaka ñi ngi gis ci réew mi yi ngi gis yu bëree bëri professeur arabe yi actuellement génération bi ci école azhar yooyu lañ jàll te ci gën a yéeme mooy école azhar yooyu te sëñ Mamour yàq yaatal ko ba ci am na dëkk yoo xam ne ñu bëri dañ doon jàpp yëfi murid la waaye yëfi lislaam la yëfi tasawuf la yëfi ñëpp ko bokk tey am na ñoo xam ay ay directeurs yoo xam ne école yi ñu yor ñii waa Kër Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif lañ ñii waa waa waa ay ay xaadir lañ kon mbokk yi ku mel ni di liggéey ci diine rawat na université yi nga xam ne tey indi na ko université Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne ña ngi koy tabax Touba actuellement dafa mën boo xam xaalis boppam la bokku nag centre universitaire yi nga xam amna bu nek Dakar gi amna bu nek saint amna bu nek bambay loolu lepp ñuy former def enseignement euh, enseignement super ñu gën ko yok gën a lepp ku melni di liggéey ben way bo xam ne yow sa diine jëpp cëpp ak pecc tabaxi kër ak ray ay nak ak lek ci lo nga ko jëmale ndax loolu mëna yu ben société mbokk yi aduna gi rek réew tuba bi li tax ñu raw ndax seen ñeneen gouverne ak seen état yi dañu nek ci pecc ndax dañuy rey ay nag ak pook pecc ak i tabax kër duñ ko doon def ndax nanan avancé duñ avancé mukk baba daa bi du po du pecc mbirum diine xam-xam moo ko yóbbu fa nga a mën a yóbbu waaye dajal ay junni nit ñu yëkkati addi di la jox ngay tabax ay ay kër di wut ay limousine di wut ay oto di teg di def lu ci kaw suuf amul lenn loo rendre maanaam l'islam wala yónni suñu ci waay ci benn côté amul mbokk yi ku mel noonu ndax kooku yelloo nañu topp ko ku mel noonu ndax jëtut képp ku doon ashadu laa wa ashadu Muhammadu képp ku di am murit jotu képp ku dund tasawuf jub baare aw yoonam ah kay jot na sëkk kon nag mbokk yi ñu ngi woote ci turu fédération yi nga xam ne ñoo jiite suñu sa bu si Abdoulaye Bakk jiite na ko te mu def ma porte parole bi bi nga xam ne day xeex ngir défendre tasawuf te gis ngeen ne tasawuf dafa am ñaari noonu waaye damay wax noonu bi gën a pire mooy noonu biir bi nekk suñu biir lépp lu mag ñi liggéey bu ko yàq ci turu ne na ci laa bokk ba pare di ko dëmbaaji di ko yàq noonu yooyu ñoo gën a garaaw te jot na sëkk ñun ñu tarixa yi ñu jug jàmmarloog noonu yooyu kon daal insha allah rabbi danañ préparé ci kanam yàggutul fii ci masaliku jinaan moo xam ne képp koy asadan la ilaha wa sallam rasul di dund tasawuf wala ngir ab julit bu fiir ci diine dal la fa woo dana daje li nga xam ne inxiraafaat yi nga xam am na mooy mooy beddi géew yi nga xam am na ci biir tarixa yoonu murid ak tarixa bu mënti doon insha allah rabbi pare nañ pour raxas ba mu set wicc lépp loo xam ne dañ ko ci góobal dana ko ci gar ndax ala kulli hal dëgg ak neen ñoo mas di xeex yàlla nag suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bal naqdimu haqqan ala baatili fa yadmaghuhu fa idaa huwa zaahiqun fa idaa huwa zaahiqun wa lakum maa tasifuun kon yàlla nee na danaa jël dëgg xaañ ko ci kaw neen ba nërmeelal ko ba yéen yi dëgg nekk ci dëgg wala xabit li mu taqi mi na yéen ñi nekk ci dëgg yéen a mu mbir mi kon ñi ngi ñaanal sëñ Mamour Mourtala yàlla na ko yàlla guddal fanam ndax courage la am dëggat la am ñii di mel na moom bu ñu amoon ci tariqa bi actuellement ci yoonu murid wallahi naa si lépp dana réglé wu kàcce ngalaam sëñ Sidi Moxtaar Bakke mag la yàlla fi yàgg kenn ku xam ne seetaanu télévision diglu radio waye li am ni tay buñ ko yegge won wallahi lancé kon saafara na bu yagg yagg yagg waye nak munkar kep ko gis amutu tàggu sa kilifa na na na na mo koy dindi wala mo koy dindi de sëñ Tuubaa daa wax ne fépp fa ngeen fekk lu bax bu ngeen ko def bu len tàggoo fep fa ngeen len fekk lu bon bu ngeen koy bayyi bu len tàggoo waye yeen sens sans na kep gis lu dëppootu diine na nang ko dindi sa loxo buñ ko mën dindi sa loxo ñu lo ayes ak kuréel yi ñu bokkal dañ koy dindi waye wax lañ man kon loolu lañ fas wax ba àdduna bépp dégguñu ba seex yu jigen nam fa amoon daw jég ba la bu ñu fi insha allah rabbi yi ñu def ci biir keur seigne touba yi ba ci touba gi wallahi lazim touba gi ñu nek ren magal touba insha allah rabbi dawa yëpp dañ taxaw wo murit yëpp ñu dajé fo nga xamne ñom ñoom fa lañ wara nek ñom nekk ñoom fa teug fekk duñ ko may ba abadu abidina ni nga xamne état du Sénégal taxaw na fi ay bécco mu teug fi cadd fi ci Dakar te état rek moko ay ngir la projet bi nga xamne dafa nekk maanaam projet judiciaire bi am légui nan lañ ko mëna bayyi mu ñëw touba dafa teug te bëgg dem Cheikh Ndigal Fall dégg ngeen ko suñu Cheikh Ndigal lan la wax nee na dama daan tëgg suñu Abdoulaye Mbacke woo ma aay ma ko ma bàyyi ko suñu Cheikh Ndigal kan moo gën a jég maam Cheikh Rafal maam Cheikh la def ci yoonu murid bi macha allah tabarakallah te kàngam boo xam ne ba lam fal babul muridine kon bu fekkoon ay tëgg ka ak foo ko pecci dafa bokk ci lislaam dafa bokk ci tarixa yi dafa bokk ci tasawu kon da ngeen gisoon suñ Tuubaa doon ko deflu suñ Saaliw Mbàkke doon ko deflu bala laa jooy jàpp lam waxoon lu dul lislaam amu ci defar amoo ci yàq loolu sëñ Saliou Mbacké waxoon lu dul lislaam amu ci defar amoo ci yàq tey nag lislaam lañ laal kon sëñ Saliou bu ko fekkoon tey dana wax dana addu wallahi laas bu fekkoon ni tey dana wax dana addu comme nekk ñun ñoo nekk nag maanaam moom bu dee fecceeg bu dee po ak lu ci yoon ñun su yoon ko def fu neex na ko defee waaye ci turu diine turu tarixa yoonu sëñ Tuubaa turu sëñ Saliou Mbacké turu lislaam loolu mayituñ ko kenn te duñ ko nangu abada babada kon ñëpp pare nañ dëgg ak pecc moom lu leen luñ leen jaral danañ ko jaral xanaa suñ Sidi Matar yëkkati kàddu wax ci waaye dawaa yëpp pare nañ pour boole taalibe bi suñ Tuubaa yi nga xam ne suñ Tuubaa bëgg nañ ko fiir nañ ci moom ku bëgg suñ nga am nga loola mett le am nga loola naqar ne dañoo bëgg suñ Tuubaa yaakaar suñ Tuubaa bëgg lépp ñun ñëpp nañ fa si ànd ak ñoom fépp fuñ teg seen tànk ci Tuubaa bëgg ko coow dana bari insha allahu rabbi kon daal li mooy déclaration bi nga xam ne suñu am sa waxoon nañ ko def insha allahu rabbi fii ci kanam ay dana woote Masaalikul Jinaan ñëpp daje fa ñu gën a leeralaat mbir mi gën a xam te sabotage dañuy def nag ndax damay wax nag ñoom ñii tey ji bu ñëw lislaam sax tey far na jeex yàqu na dañuy tàcc dañuy dañuy tàcc bu ñëw yoonu su Tuubaa far na yàqu dañuy tàcc ndax ndax lan seen jëf moo ko wane poo pecc dajël góor ak jigéen ñu def la xam Sëriñ Tuubaa musu koo def Sëriñ Tuubaa nee na lu lu yent sens bëgg bëggu ma ko lu mu bëgg loolu laa bëgg wa ma aba yo baaw nga ñi ñëw taxaw ay biir këram di def maa tey di di def lu la neex di sabotage wala yaasu billahi loolu gën a gara amul kon mbokk yi fi la ñu yemale kàddu incha allah rabbi bis yi ñëw incha allah da ngeen gis yeneen action yoo xam ne dawaa ir yi man mi wax seen porte-parole sëñ am sa def ma ko ak turu AIS incha allah bi doon defaat ay yenn action wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu